Oh, Aisha, we mama hug yo. man saa yu sama xel dem ci sama soppe waaye moom mi saa yu ma seenee wan ma ginnaaw bàyyi ma ma weet sama magel lor na ma sama yaakaar taxle ee yow soo jooyee ma dal di mel ni kuy bëgg a jaaxle Aïcha Aïcha kaay wuyu ma Aïcha Aïcha faale woo ma Aïcha Aïcha yëguloo ma Aïcha Aïcha bëggul jaar yow ni nga taaroo Assami mënuma ko fàtte mënuma ko bàyyi kay bon ma chéri Aïcha Aïcha nobuloo ma à côté de moi. Sans regard, règne de sabbat. J'ai dit Aïcha, prends tout est pour toi. Aïcha, Aïcha. Écoute-moi. Ah oh! Aïcha Wima! Aïcha, Aïcha. Listen to me. Ayşe uyuma Ayşe, Ayşe Ayşe gül ben bayma Aïcha, Aïcha, t'en vas pas. Aïcha, Aïcha.